waaw sëriñ Cheikhouna Bousso. sëriñ Cheikhouna Bousso waaw. waaw Sarikala Bousso Gam. waaw moom sëñ Fallou ak di ko laaj ndigal. Mm-hmm. waaw si bis boobu nga xam ne moom la ñu fas yéene taxawal. Mm-hmm. te te Cheikh Fall am fi cër bu bu rëy rëy mm-hmm. ndax bis bi si jiitu maam Seera Fall lañ koy jagleel at mu jot amatul ko mm-hmm. waaw mu muy doon ñet ñaata fan lay doon. fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu jëm ba ñaat fan ak benn. waaw waaw day doon kon maanaam semaine rek. semaine lay doon waaw semaine lay doon waaw. maanaam ayu bis lay doon. ay bis lay doon yoo xam ne euh, bis bu nekk daal dañ ti am kun ko jagleel mm-hmm. waaw am luñ ci gëstu si nga si jaar-jaari sëñ Touba foofu sa Gabon mm-hmm. ak ab liggéeyam mm-hmm. waaye bis bi si jiitu daal moom Cheikh lañ ko lañ ko lañ ko jagleel waaw yaay Cheikh Ibra moo taxoon mu ñëw fi yow doon la laaj ci ndigal ak di sàkku si ñaan ci bis bi mm-hmm. Mm-hmm. waaw jaaroon na si sëñ Cheikh Khadim mm-hmm. moom it euh, ndeysaan waxtaan seek moom moom it mu ne leen ñoom sax invité nañ ko ngir mu teew fa waaw waaye ñoom ñu ñëw di laaj si ndigal rek waaw ndigal leen si jox rek Fall ñu jëfe ko sëñ Cheikhouna Bousso moom sëñ Fall Bousso Gabon la waaw waaw waaye daa ànd ak ñoom liggéey bi waaw moo doon seere moo doon seere si liggéey bi taxawaay bu ñu am wax ni ñoom bi ñu ñëwee danoo dañ ci sëñ sëñ Muntaxaa waaw buñ ko xamalee liggéey bi lii ay carte la yoo xam ne moo si boole képp ku war a bokk si mbooloo mi waaye lii mbindum sëñ Muntaxaa la nee na sëñ Muntaxaa moo jël bindukaay bindal boppam aw turam waaw Mouhamadou Muntaxaa nee na moom moo bindal boppam fii aw turam wax ni moom mu ngi bokk si mbooloo mi moom sëñ Muntaxaa waaw foofee ñu ne sa Gabon nag sa ba dafa am naal yu ñu fa naaloon mooy dañ faa naaloon tabax fa jumaa ju mag tabat faat bërëbu jàngukaay boo xam ne bii ña nga xam ne ñoo fay nekk tu tànk yaag yooyu di fa mën a jàng alxuraan ak xeeti xam-xam yi nga xam ne moom la njiitewoo nee na liggéey boobu nag am nañ ci lu kawe seen njort ndax njiitu réew ma ci boppam moom moo joxe ndigal ñu jox leen bërëb boo xamante ni bii daañu fa def loola wax nañ ni ki nga xam ne moom moo doon taxawu liggéey boobu sax moom sax du ab jullit waaye moom moo seere ni sëñ Tuubaa am na jumaa njaareem am ko Tuubaa am ko Ndakaaru kon nag ñeenteelu jumaa ji daa war a doon foofee sa maayomba muy ñeenti bant yam sampoon foofee te am ku ko ñëwoon far ko te te suñu borom xamal ko ne ko dinaa la fayee euh, jumaa joo xamante ni ji moom moom moom kenn du xam ab dayoom waaw looloo tax ñoom it ñu jaar sa tànk yooyee mm-hmm. waaw Baye Cheikh Mbeng mii nag nga xam ne moom it daa daa daa ànd ak ñoom mm-hmm. mu di ko seere yitteem ak taxawaayam moom daa bokk sa njaboot mm-hmm. waaw moom it mu di ko seere yitteem ak taxawaayam ci liggéey bi maam seere bi bëgg Fall nga ñaanal leen ba liggéey bii li ñu si yéene lépp nu am ko ànd ko yow ba mu àgg ñu àndaat ak yow lu yàgg-yàgg waaw liñ ci def ñu dayee seen ngërëm waaw bis boobu ñuy taxawal it muy bisub Seera Faal fas yéene koo dundal di la si laaj ndigal waaw njaboot gaa ngi nii ñoom ñoo teewal ñu teewul ñëpp rek Faal waaw jërëjëf Faal waaw waaw waaw loolu Cheikh ah, dëgg la Cheikh waaw moom la ñuy liggéey. waaw Baye Cheikh dégg nga ko. waaw ah, nee na nee na lépp liggéeyal Cheikh Ibra Fall la. nee na ñun amuñ luur Cheikh Ibra nee lépp Cheikh Fall lañ koy defal kon nag ni xam ne sëriñ bi ànd na seeg yéen waaw ah, ndigal li ngeen di sàkku sëriñ bi jox na leen ko waaw ah, fas yéene ànd ak yéen nag sayir ak baatin waa ah, ba liggéey boobu li ngeen si yéene lépp ngeen am ko waaw lépp lu ngeen si def Cheikh Fall ngeen ko defal waaw te Cheikh Fall amuñ lu dul moom kon nag neen sama borom kàttanal ba li ngeen si yéene lépp ngeen ngeen ngeen man ko mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi soññee ci mboolem murit ya ne foofee te te te te te ndigalul sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall leen fa ñoom it ñu taxaw si liggéey bi ànd koog yéen ba ba ndam li nga xam ne sëñ Tuubaa da koo am te nga xam ne day jëm kaw rek waaye du suufe mukk nu mën saa bokk doon sa dara waaw sëriñ baa ngi sant ku dib taalibe mu ànd ak yéen sa liggéey boobee ba ndigal lii ngeen am sëñ sëriñ Muntaxa ndigal lii ngeen mottali ko am ko na ngeen ko bëggee am ko na ko sëriñ bi bëggee sëriñ baa ngi leen di ñaanal bu baax ñaan yàlla na ngeen si tàbbeeg jàmm am si ngërëmul sëriñ bi àggale ko jàmm barke maam Cheikh Ibrahima jërëjëf waaw waaw waaw sëñ waaw waaw waaw dëgg la waaw sëñ Cheikh ñoom dañ ko invité bëgg mu ñëw teew sax waaw moom it waaw xam naa sëñ Cheikh faaw dina ñëw fii incha incha allah moom waaw jërëjëf jërëjëf Mbeng baax na busa bisimilah waaw waaw jërëjëf jërëjëf ñaanal leen Fall amin amin ya rabbi amin amin amin jërëjëf wali raadahum duran wali kalamal janba aqasani al anan min kaydi man khala wasalaka naaril xilli li baru ma yumba